bayu am di jaay ba ko fa bu bëggee kii nen ne nag ku fi làng ca bëggumu riis nga boole na fi doo juddu jéeri doo mbadam taal ndar gi nga dëkk <laughs> kii ku fi làng ca bëggumu riis mu boole na fi doo juddu jéeri doo mbadam taat ndar gii nga dëkk. ami internet Dakar Buzz nuyuwaat nañ leen yéen ñii duñu suivre sur Dakar Buzz TV ak Dakar Buzz point net fàttewuñu ñi ne ñu ngi ci Facebook bi ak Instagram bi di leen rappeler rek aussi que Dakar Buzz est disponible sur ko comme ni ma leen ko waxee woon rek man ak moom émission la boo xamante ne fépp fu ndaanaan boo xamante ne mi ngi ci Sénégal di fi bay waaram dañuy dem seeti ko waxtaan ak moom tey nag dañoo ñëw seet si ki nga xamante ne icône la ci euh, cinéma sénégalais mën naa ne bu xale yi demee sax ba ñame cinéma ñameek écran ñame caméra bi tamit dañuy ne si seen jëmm bi ñoo tax dañuy ñëw rek euh, bàyyi suñu maman bi nga xamante ne kenn dootu ko présenté biir Sénégal ah, ndax béy na waaram bu baax a baax a baax ci milieu théâtral bi muy naanaan bu mag nag dootuma ko présenté kenn dama koy bàyyi rek mu yokk internet Dakar Buzz yi waaw kon nag euh, maa ngi leen di nuyu waa leen sant di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay di leen wax nag ñi ça va droit au cœur le fait de vraiment lu ma neex la maa ngi leen di sant lu bare bare di leen gërëm ñu koy jaajëfal naa mu nekk suñu maman bu baax bi nga xamante ne na comme am mun naa ne kenn doot ko présenté biir <laughs> Sénégal léegi dañuy ñëw rek xuus si waxtaan bi rek mais dañoo bëggoon xam boo doon présenté sa bopp tey sénégalais yi ak nouvelle bi sax laay wax parce que mën naa ne mag ñi xam nañ la nouvelle génération boo doon présenté sa bopp kan mooy Néné Comé kon nee na jaltabi samyel Moussa Amadou sama demandé ido moo dégg laa bi moo di xam nga xam sa bopp dafa neex mhm. damay daal di tagge sama bopp foofu laa jëkke man nee na maa ngi dëkk Ndar mhm. màgge ndar maanaam amee tamit sëye ndar mhm. macha allah ku nekk xam ma ci tur rajo ndar d'abord mhm. ñëw fii après nekk rajo nostalgie mhm. après nostalgie c'est la RTS nekk télévision kookoy nee na ko mais bëgg aar mun ne ci deretam waaw mais maman maman jonge bi maman ban origine nga exactement non je suis Haalpulaar je suis née à Matam mais j'ai grandi à Dakar jaroon na ci biir ngéwal te xam ngeen lu géwal bokkul neexul waaw loolu la jeex Adja Maritou Ngom moo ma yar di wax ak man ci bët mhm. dafa doon expression de visage fa laa ko jànge mais ni mu mel nii pour affaire théâtre ça je l'ai dans dans le sang mënuma ci dara jonge bi nag dañu naan jonge jonge mais man luy jonge <laughs> non maman mooy jonge mais bi rek jonge la de waaw waaw luy jonge waay <laughs> durant année 90 yi ñu gis ne si si ngeen nekk ci milieu théâtre bu baax a baax a ah, baax ah. boobu léegi gisuñu dara li nga xamante ne ñaaw na seen image gisuñu nit ñu wax ci leen lu bon gisuñu nit ñi wax ci leen ñu ñaaw te gisuñu tam ngeen jëfee ko mais image boobu nan ngeen def ba garder ko exactement mais dañuy mag mhm. ba pare bëggoon li ñuy def mhm. ndax boo bëggee ñëpp di la seetaan am na ñooy doxale mhm. boo bëggee mag ñi bu ñu toogee du ñu rus toog ak seen i njaboot am na ñooy doxale ndaxte ñun suñu yëf dañ daan yeete ku ñu mo seetaan boo jógee daa am loo ci jëlee. toujours da ngay am loo ci jëlee parce que dañ doon yeete di wax te li liñ doon wax it ay société la euh, ay fee yoo xam ne yu amoon euh, en ce moment. Mhm. bari nañu lu ñu def théâtre dafa amoon. Mhm. tu vois te ñu nekkoon ay mag bëggante sudew di dem ak xol. suñ ko daan def dañuy dem ak xol ndax dañu bëggoon liñ doon def c'était une famille en quelque sorte mhm. comme li ma leen koy waxee turandoo Marie Madeleine a ngi nii kon nga xam ne lu yàgg la mhm. Serigne Fall tudde na Marie Madeleine mhm. kon nga xam ne lu yàgg la Daouda Guissé tudde na ma doom kon nga xam ne lu yàgg la c'était maanaam famille la ñu woon famille la ñu woon xool yi ànd ñu bëggoon li ñu doon def seeni wuñu ci woon xaalis par contre xale yi xam nga ñu ci am lu ne mais bu démb doon tey xëy na ñu am ci mais dañ ko doon def ak xol te bëgg ko ba pare bu ko doon jàngat bu ci nit dem ba def ko am na loo xam ne boo ko doon def sax boo ñu seetaane bu yàggee da ne ah lii du sama cër ndax ñii wax nañu lii wax nañu lii wax nañu lii def nañu lii lii du sama cër da ngay daal di dellu ginnaaw waaw boobu mooy théâtre démb ni ñu ko waxee en ah, boobu mooy théâtre dem ñu gisoon ne da nekkoon benn famille bi nga xamante ne lépp dafa natureloon dafa natureloon seen biir gis nañ ngeen di tuddante ay doom coloré bi dem ba sax ba léegi nii ba seen i doom di tuddante ay doom ñu gis ne tamit nouvelle génération bii nii uh-huh. euh, gars yi commencé nañ di def ay téléfilm et tout mais dañuy gis ne jé dañuy jékki-jékki ñoom ñi doon ànd seen biir dañuy dem ba yàkkante uh-huh. loolu lan moo si sa xalaat booba dañu gëmul yàlla uh-huh. ndax man nee ne li ma mën yàllaa ko def ci man kee la mu mën yàllaa ko def ci moom mais su ma bëggee ne damay jël bosam jël sama bos day daal metti nit ñi da ngay gëm yàlla la la yàlla jox nga yem ca mais doo jël pépp jël pépét yàlla mayu ko kenn tu es artiste comédienne am na loo xam ne buñ ko xoolee xam nañu yow lii nga mën lalla diryanke la gis ngeen lalla c'est une grande mm-hmm. gis ngeen Marème mm-hmm. na mu joŋee mm-hmm. mais bu lalla ni woon day def li Marème di def day am ku nekk am nga lu la yàlla may ku nekk da ngay téye ci li la yàlla may sëriñ yi daal sëriñ dafa ah ku ne da ngay sangu ci defar sa bopp duma wax loolu amul mais yóbbu sa moroom parce que la mu bëgg nangam wala la kee di def war naa ko mën a def yàlla mayul kenn lépp ku nekk ak la mu la cërale ku ne am na lu mu la mooñale boo xeebu la mu la mooñale dañ la jëriñ boo ko boo bëggee nag li ma mooñal dama koy jël bëgg jël ma su koy jël yàlla mayu ko kenn yàlla mayu ko kenn ku nekk ak la mu la mooñe moo tax nag boo ne tey jii ña ngay ayoo ña ngay xeexoo ña ngay siisante ñàkk gëm yàlla la. surtout nekk di yàqante ci biir. pourquoi man ma ni ba réseaux sociaux amee la si am. booy lekk filmé. <laughs> non boo lekkee filmé. bu ko defee nooy def man dama naa leen bu kenn filmé bu ko kenn wane bàyyi leen ba ma lekk ba pare. Mm. xel yépp a ci ne. ah mais danga xam bët yëpp dañoo yem. dama naan balee kenn di génne bàyyi leen ba ma lekk ba pare dimbale leen ma so nga gis ko sol euh, euh, wax sax wax ju bon sax danga ko ciy génne pour dox ah, ko sa dox ko sa. sa sa nit. c'est pas gentil réseaux sociaux yi mënoon na nekk lu bare bare ndax nit ñi ñu ngi ciy retrouverante ñu ngi ciy xamante di ci waxante lu baax waaye bëgg ko def arme bëgg ko def xeexukaay moo rafetul mhm. arme ak xeexukaay bi moo rafetul mhm. yoo xam nga li ma la wax de xam nga li baax li ma la wax ndax yaa bañ ko ba dégg nga gaañ ñi ngi ciy rayante ci seen bopp kii yéenewul kii lu baax kii mm-hmm. yéenewul kii mm-hmm. nga am foo ko jaare sama benn xarit daan na ba pare di wax lu amul sama benn xarit nee na ma nee na ma na ma nee na ma mun ma fen amul xam nga lu am xarit yu bare uh-huh. man ka mun ma sama xarit nga sama xarit boobu am na xarit kooku am na xarit mun ma wax ni mm-hmm. day law day law moom moo tax nag ku nekk da nga war yemale sa wax te nag ñu gëm yàlla àddina bii dëkk bi ñi fi nefoon dem nañu daan def comédie mu neex torop ñeneen ñëw nañu dem nañu mu daan neex torop ñun ñëw nañu ñu ngi nekk de côté ñeneen ngi ci fi xam leen am na ñeneen ñu nekk ci seen ginnaaw mm-hmm. rafetal leen ko rek mm-hmm. nañ leen rafetal soo mi rek duggee ko marché day rafetal comme ni ko maman waxee gis nañ ne tamit léegi nouvelle nouvelle génération bi mm-hmm. da ngay gis kenn koo xamante ne nekk na figurant rek si benn téléfilm ah, wala feeñ benn clip rek lay commencé day am day am succès boo ko bëggee woo comme par exemple nga bëgg ko woo pour am ak moom benn entretien sax dala naan jaara sama manager wala du sax jël sa appel te yéen nekkoon ngeen fi ngeen gérer seen succès avec classe ku leen soxla gis leen ba tey jii nii ku leen soxla dina leen jot mais yow benn nga nekk fi nekk figurant ci dara. mooy yow bu ñu la wooyee doo wuyu. xanaa boo nekk figurant ñu wóolu nga wuyu bu yàggee sax nga saf nit ñi. nit ñi di wax sa wax bu ko defee di nga mën a xuus jàll. waaye yow benn yoon nga def dara rek. daal di def sa star am naa manager am na mais mon dieu mais kenn xamatul daal day na euh, succès doo ko yëg. boo ko amee te mënoo ko gérer da yàq. boo amee succès te gérer mënoo ko gérer da lay yàq. dalay def loolu loo warul def dana la ñàkk loo fayda dana def ba nit ñi xeeb la. boo ko amee da koy xam ne yow nit rek la tey lii la yàlla jox mënoon na ko jox sa morom lii la yàlla def mënoon na ko def sa morom yow la ko def waaw man amal euh, soit humble ku la soxla ki dem ba jël téléphone am njëkkati ko woo la boobu soxla na la. te dañuy liggéey dañuy liggéey sax entre ñun. dañ leen soxla ñoom tam dañ leen soxla bien sûr. Mhm. bien sûr man je vais te dire depuis démb je ne pouvais dama ne du ma mën jël kenn. Mhm. vraiment comme Khady Samb aussi ñëw moo doon bàjjenu na fi nag moo doon na fi doon defanteeg man. def na fi doy waar dafa doon defanteeg man te nee na dafa ñëw dafa ñëw di defante seeg man man ka nag maa ngi leen di <laughs> xaar. waaw maa ngi leen di na fi moom ñemewu waaye moom kii ka ngemb. waaw naan ko kee dafa a ah na fi dafa indi ah. délégation am de. ah hmm. baax na ah, délégation waaye dafa ragaloon <laughs> daf may xool ak ni ma. Ah? waaw. waaw naan ma barke sëñ Touba yow lii foo la yow man ko foog lii wu jëng naa ma foog dama koy defanteeg yow ba mu saf tante ji nag moo ko ah. ngemboon naan ko lu lu jëndi ragal lu jëndi ragal géej juddu yu ndox mi de man ko ba ñëwee dinaa ko baxal ba mu ñor jënd na ragal géej mais dafa mel ni Nafi ngay defanteel si sañse bi nee na ma sànq maa ngi ñëw ñu defante ba mu saf man ko ñëw sañse bi moom bu gisee sañse bi dootul ñëw sañse <laughs> d'accord donc ñu loolu benn parenthèse la woon rek dañuy ñëwaat tuuti ci euh, tel milieu milieu téléfilm si suñu jamono jii nii. Mm-hmm. gis nañ ne tamit euh, léegi castingu yaa ma neex moo am su ma nee yaa ma neex danga naan kii sama xarit la dama koy dugal ci casting mu am talent mu bañ am talent su ma nee tamit castingu yaa ma neex da ngay gis kenn koo xamante ne mën nañ ko proposer dara muy propo promotion canapé genre danga may danga may jox dara pour ma am dara damay ñëw. am ak yow benn affaire bi nii pour mën la génne et tout loolu lan nga lan lan nga sikkee man daal loolu ñu ngi may promotion canapé man daal canapé toog laa ci xam waaye dégg naa xale dañuy nangu loo xam ne rien que pour loolu uh-huh. mais yow ëllëg xalaat nga am doom wax jooju war a mën génn waaw est-ce que xalaat nga loolu ki ñëw ba bëgg la bëgg la def la dara mais lu tax nga war ne lii dama ko bëgg jaral na ma waaye yow canapé toog lañ ci xamoon <laughs> waaye léegi koo wax dañu mais non je te jure fu ma waxee loolu lañ may wax naa ma xale yi jaral na leen lu ne mais doo seet sa honneur mm. doo seet yaay kan doo xam sa bopp mais pour quelle raison ka ñëw di la proposer lool est que dana ko bu ñu ko proposer woon rakkam dana ko neex mm. est-ce que bu ñu dafa doy waar mm-hmm. milieu bu doy waar la mm-hmm. boo si sa bopp feesul mm-hmm. amoo bopp nangu woo xamoo sa bopp xamoo fi nga jóge te doo xalaat di nga def loo xam ne di nga génn ëllëg bi daane lii lu ko jar te dañ nekk si jamono boo xam ne sax toppandoo bi moo fi ëpp da ngay toppandoo sa morom wala nga toppandoo yeneen réew yi ba fàtte yow ki nga doon fàtte fi nga jógee. mais booy toppandoo toppandoo lu baax. Mhm. mais lu baax la ñuy toppandoo mais lu bon xam nga nag lu bon dafa dafa neex a dem. Mhm. def baax mbaax moom moo jafe. Mhm. mais mbon dafa gaaw dafa dafa neex. mais boo ko defee tey jii ëllëg na. est que ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la de. am na fi ñoo xam ne defoon nañ fi loo xam ne bu doon seen sago kenn dootu ko wax kenn dootu ko ŋaan ndax njaboot jóg nañ ca njaboot gi mag na te surtout booy jigéen war a jur am njaboot ne ci milieu na milieu ba rafet waaye na rafet ndax suba du añ du reer waaye lu mat sedd la te say njaboot mën nañu màgg ëllëg sa yaay fi defoon lii wutal la xas sa yaay fi waxoon lii wutal la xas waaye dara jaru ko samay doom ngeen samay xarit ngeen vous êtes des actrices vous êtes des comédiennes bëgg ngeen li ngeen di def gëm leen ko bu leen ko dara jaral seen honneur bu leen ko dara jaral gis nga li yàlla di danga koy lekk boo doon tëdd dina la dañ lay yee rek da nga koy lekk da ngeen di gëm sa bopp nit day gëm bopp dëggal boppam mais euh, euh, canapé canapé nga xam dañ ci daan toog ñu naan euh, kii canapé promotion canapé lu tax balaa caa nga def promotion ah, ban téel sa ban toog jàpp sa tranquille am sa am sa fayda xam yaay kan mais c'est ça c'est un conseil que je vous donne en tant que mère en tant que grande sœur loolu laa leen di jox vraiment bu leen ko nangu te nag ñu ngi koy wax ku ko yëg ak ku ko yëgul am na ñoo xam ne ñu ngi koy def ñëpp xam nañ leen nag xanaa xam patta fi ne xam teel xam ni pat léeg li nga gis comédien bu génn ñu la waaye bàyyil ma kii nangam nangam wax ci yow loo xam ne foo nga ni kenn xamu ko fekk xam nañ ko moo tax di leen sàmm seen bopp sàmm seen ngor bu ko dara jar bu leen ko dara jaral bu ngeen ko waree am da ngeen koy am bu ngeen ko waree def da koy def loolu rek la parce que da ngay xool fi ngeen toog te mos nga xalaat ne di nga fi toog. Ah, lu la ko may am sa ful ak sa fayda ak jàng xam li nga bëgg xam fi nga teg sa tànk. Mhm. mais pourquoi du ñu def noonu. Mhm. waa bëgg gi yàkkam ci yàkkam ci yàqule. Mhm. surtout baax yomb na sax waaye sax si moo jafe déedéet da koy jéem boo ko xamulee boo ko jéem <laughs> ndeysaan sama benn xarit nee na ma boo amee lu baax. am ñaari doom kii réew kii yaru mun ma bul ko ci jox ko yaru ki man kaa mun ma da koy téye da koo xam mais ki yaru diku nga koy jox bu demee ba yàgg da koy sonal da koy sànni ki ci gannaawam ki nga xam ne dafa yaru dafa baax da koy for bu ko foree téye ko moo tax dara jaru fee jaay dara jaru fee jaay lu nit di def te nee naa leen lu nit def ren ba déwoon muy dëgg ci yow yàlla fekk la ci jotto yàkkamti booy dawal mbégee sax xam ni moom nga bëgg moom nga mën bu la kenn raw jëlal fee ndax moom nga choisir comme métier nekk sax boo ko gëmee da nga ciy da nga ciy dem yàlla la ciy fekk. waaw waaw waaw yàlla la ciy fekk. mais selon yow maman yan critère la nit war a am pour mën a nekk acteur pour ñi nga xamante ne ñooy def casting yi yan critère lañ war a ah, jëlee seen seen ki dem ki dem dafay je chose. Mhm. ki dem ba toog def casting xam ne lan la. mais comme ni nga ko waxee léegi bu fekkee si s'il trouve son compte avec les autres attends day def lu ko neex. Mhm. xam nga yow ki dem ba toog di def casting xam na li muy def mais bu fekkente ni yow gis na la ne amoo bopp te yow tu tiens vraiment te yow li nga wax mu jox la canapé mbaa mu jox la banc mu daal di la ko jox nga nangu mhm. mais kii dem bay def casting xam na li muy def te xam na ñi mu war a jël mhm. mais li nga ci wax a ci nekk rek ça si si vraiment facile que xam na ni kii xool nga ko bëtu man bëgg naa jaral la ma lu ne mhm. au lieu ba mu koy jox ki nga xam ne moo ko mérité ak te yow canapé bi mi ngi fi taxaw na te nangu nga ah mu jox la ko bàyyi ni ko mérité looloo fi amee <laughs>